président Macky Sall moo ci yéeg nee nañ mu nekk nii président Macky Sall si yoon la ne. Ah. maanaam sële ba yoon. foo xam ne doo xam fooy jaar. bu tourné gauche. Yacine Seck mi ngi fa taxaw ak ak facture courant nekk dëkk bi cher. waaw panier la ménagère boo demee euh, marché ba daanaka mënoon dugg. ku la jox dépense junni doo mën a togg sam baxal mu tourné droite jàkkaarloog waa gësameur yi. <laughs> waa ànd a gësëm ànd a ñoom Mballo Dia Thiam jàngalekat yi ñoom ñëpp ñi ngi taxaw parce que ne jàkkaarloo ñoom mu ne nii tourné beneen yoon jàkkaarloo opposition bi mm-hmm. kii gàddu gourdin kii gàddu marto ku si nekk taxaw fës ki ne jàkkaarloo moom ah, président Macky nee nañ ko yaa ngi si cëppaandaw gi nag waaye metti na def mu nekk Macky une fin de règne à problème daanaka yaramu màggat la foo ca laal day metti réanimation xeetu jàngoro bu ne président Macky Sall il fait à des équations à résoudre avant son départ ndax nag wax na ko ba kër ba muy joxe lengay mooy président de la république. bu ñu amee suñu problème moo ko war a saafara. kenn werante wu bilan woo ñàkk bilan woo demoo ñàkk demit suñu problème yow mhm. la ci biir ah, la dette intérieure. les sociétés privées du Sénégal. nee na des secteurs que l'on croyait pacifiés la lutte ñu ne déetawaay le nombre de chômeurs. a considérablement augmenté est-ce que wàññeekul parce que ñu bëri dee nañ ci géej gi de. est-ce que ki doon tax mu bàyyi. dee nañ ci géej gi. parce que jël nañ gaal. non ñu ci bëri sax sama mbokki mool. nañu waxante maam bëri na ci sa voilà ay mbokki mool du ñu woon. ay chômeurs mais non plus ay ay marchands ambulants aussi les ah. pauvres. y a les étudiants et autres. oui bëri na profil. non am na ñoo xam ne xam nga yow nga am sa amoo liggéey nga jël gaal yi dee des élèves am na ci yaay bu jël doomam àndax moom ci géej profil bu nekk am na fi. waaw kon kay du chômeur yi nag nañ ci gaal nañ waxante dëgg mais bëriwuñu. profil yëpp la donc profilu chômeur yaa ngi ci. doon waxtaan keroog nee na tey jii moom ñoom journée noire ñu koy tuddee. parce que euh, journée napp mi dañ ciy bàyyi xel bu baax ñii nga xam ne ñoo dee ci géej gi nappkat yi. keroog ñoo ko jëm direct tës. donc xam naa sax dinañ ci gën a waxtaan ak moom chômeur yi dañoo gën a yokk nee nañ fii ci réewum Sénégal Abdou Gueye yi maanaam nelaw ba midi une heure. <laughs> Souleymane Faye ko wayoon de jamono yeewul naaj na Abdou Bey nee nañ dafa gën a yokk jamono joojee nag président Macky Sall dafa mel ni amul sëtuma bu sode parce que bu amoon sëtuma bu sode nañ ko waxal yi baaxam waaw dafa mel ni am ko parce que nag président Macky Sall nee nañ li mu liggéey ci réew mi hmm. teer bii ah. BRT ba dañoo koy dem ak a ñëw dañoo koy essayé. arena koy essayé daal Abdoulaye Wade AIBD bi mu inauguré. waaye infrastructure lu mu ci lu mu ci ñor di ci ay tali. autopont yi. autopont waa léegi président Macky Sall péage. péage waa président Macky Sall léegi andi lan yi baaxam kenn du ko ko waxal. waaw waaw foofu noonu. Hmm? Puma Puma yu bëri ci région yi. tali yu bëri ci région yi. ah Azer. léegi yéen a bi ne na pourquoi public. pourquoi ces ministres peinent à rendre visibles les réalisations waa léegi lu war a loolu. ay cuune yi nuroo waale Mamadou Fofana bi Abdou moom dañ nañ ko ci àndam dara. waa léegi nga xam ne ñoo nekk day ministre. ñoom Thérèse Faye ñii. waaw waxal waxal mbaax ñoom Aline Ndoye ñii waxal mbaax sax xaw ma lan yàqul lenn si sam. waxal sa mbaax waaw ñoom Amadou Ba ñii ak kan <laughs> ministre yi dañoo dañoo ñoom Bousquier. Mariama Sarr. waaw Moustapha Diop am na kii Moustapha Diop moom anam mu ngi liggéey. en tout cas nee nañ mu nekk ministre bi moom dafa mel dañoo tële dara yow président Macky Sall di liggéey moom moom mooy obligé di waxal boppam. Moustapha Diop mi ngi ci agropole. ah. ah na lim naa ko moom mooy obligé di boo xam ne yow fi nekk di jouer kenn mënu la ne man lii laa football. waaw moom mooy obligé mu nekk di football football bi di wax wax ji. waaw yéen a kaay moo samp laaj bi de. jamono joojee nag tey la bés bi ñu jagleel wàllum tàgge. moom gorom ma nga ca. mais Mansour Faye lu tax du gàddu. ginnaaw Macky Sall bi dem défendre. lu dara laaj. Soora ñoom yow président Macky Sall daa doon mel ni am sëduma buso. sëduma buso sa baay amu ko de. fond d'appui développement de la presse. yéene kaay bi nee na. organe de presse. Hmm? ministre xale bu réer. ministre xale yu réer. fekk Yacine day fàttali may may may sama jabar ji démb daf ma ah, asma nee na mu ngi ñuy ñaanal ñun ñëpp sa màkk ministre ndax bu dëgg neex yàlla ñu koy nuyu bu baax ah ministre foofu nga nekk ñaanal bi bu ñu fàtte si umra bi le ministre di xale yu rëy xale yu rëy cent quatre-vingt-dix organes cent soixante-six rajo communautaire ñu toog man est-ce que man nag maa ngi du ut fréquence ba léegi amaguma c'est-à-dire un milliard quatre à un milliard neuf cent millions. am na beneen yéenekaay bi si ñëwaat dinaa ñëwaat ci xayma ji. Mhm. migration irrégulière l'ONG Otra Africa propose une série de solutions fii ñun ñëpp solution la ñuy xaar ñun ñëpp solution la ñuy xaar. Amadou Ba solution bu Abou Thioubalo wala. waa ba tey moom moom moom am moom am solution <laughs> moom solution lay wër moom it de. doyen Pastor Manto dans ses tournées économiques Amadou Ba fu mu nekk nii dafa mel ni dafa réer. war solution ba réer. Amadou Ba ak tournée économique bii. moom i solution lay wut ngir feeñ. parce que Amadou Ba moom it amagul solution pour feeñ. président Macky Sall la àndal. fu mu nekk fu mu nekk président Macky Sall mooy non xam mooy wax mooy def mooy dindi xam lan mooy dindi. ah benn wax ñoo di di jàkkaarloo ak président di ko expliquer expliquer mu ne boo demee waxal ak Amadou Ba te Amadou Ba mi ngi ci wet. moom sax te xamul ne Amadou Ba a kaay mooy samay kàddu nag de yéen a kaay mooy wax boo demee ñàkk bayre boobu. ñàkk bayre boobu ñu ñëw ci candidature bi. <laughs> mandataire bu Bassirou Diomaye Faye moom nga xam ne jàppoon nañu ko mujj nañu ko bàyyi. Mm-hmm. Amadou. Amadou Ba la tudd moom it libéré et placé sous contrôle judiciaire kon mooy mandataire ba fu mu nekk nii na ko mujj nañu ko bàyyi la tax ñu bàyyi ko l' ambassade de France au Sénégal a protesté auprès des autorités sénégalaises après l' arrestation d' Amadou Ba mandataire du plan B de Ousmane Sonko. ñu ne déetewaay plan B boobee équation la à multiples inconnus parce que xamuñu ndax mën na bokk wala mënul bokk ndax maa nga ca kaso ba kii nga xam ne mooy njaga si laa war naa mën a bokk. kon A B C D day dem. très bien député nee na article L57 du code électoral écarte Bassirou Diomaye Faye comme candidat indépendant ni la loi numéro 91-17 du 6 mai 1981 relative aux partis politiques modifiée ni le code des obligations civiles et commerciales ni le code électoral ne stipule l'interdiction de se présenter à une tey mën naa bokk am na porox ndoom buñ sukkandikoo si njaga si mooy wax L'essentiel est que la coalition doit être formée par au moins deux partis légalement constitués kon nag ba tey xel wax fa dëgg neex yàlla mën naa jàpp ni Bassirou Diomaye Faye candidature am war naa a jàll Ndiaga Sylla mooy wax expert électoral bi. le quotidien yéen a kaay ñëw ci Bassirou Diomaye par Ousmane Sonko candidat sans doute il ne fait pas l'unanimité chez les alliés foofu itam am na ñoo xam ne d'accord duñu si liñ tànn Bassirou Diomaye Faye am na ñoo xam ne ñu ngay démissionné ci biir. am na ñoo xam ne d'accord son poids électoral en question lu muy pesé fan mooy base loolu yëpp yéen bi daal na ciy dikk du samay kàddu nag waa ndax ca ca Ndeela Fall mi amul ndam ci kanam ñu ko doon xas. <coughs> ndam bu rëy. ndax mii. jëli bu rëy ndam li nga xam ne mooy fiche bi amul ci ndam. Oh, jëli bu rëy. ah dafa mel ni mbir yi moom fu mu nekk nii moom mooy tex tex mu nekk ca Ndeela Fall. dafa mel ni Tanor ca Ndeela Fall. waaw Tanor ca Ndeela <laughs> <laughs> yéene kaay bi l'évidence nee na xale baa ngi nii tourné huit jours la sumb moom ca diwaanu Casamance dans le sud du pays Anta Babacar Ngom bouger les lignes en Casamance parce que nag foofu nag fu mu nekk Anta mi ngi wane boppam foofu de. maa la Anta Babacar Ngom. mais mbaxane cowboy bi moom moom moom moom. non ah, mi ngi fay yëngal def na fay proposition yi am solo. chapeau de la femme. chapeau cowboy nee na il faut ñu samp ko fa. pôle économique bu daanu Casamance mën na koo suqali. day wane ni moom it dafa am. fit ko chapeau cowboy bi moom a neex. chapeau chapeau cowboy yi nee na violence basée si genre loolu war nañ ko xeex. kenn moomu ko de. Anta Babacar Ngom en tout cas fu mu la création du label Casamance. ku mën sa du ma. le désenclavement de la zone. waaw les axes phares du plan spécial de développement de la Casamance. cëm. Eh, ni ni ni Bougane étaler programme am. moom it noonu lay étaler programme kon mi ngi doxal. mi ngi doxal kon Anta mm-hmm. ah, mi ngi ak programme. mi ngi doxal sa Casamance. très bien Anta doxalal. ba kenn laal la ñu xool ba xam ah. waa ñeme rek ñeme na ko de. ñeme rek. ñeme na ko de ñeme na ko de. ah ñeme rek. guerrière la de mu ngi koy doxal. amul secret de amul secret. ñu mel terrain bi rek wàcc si terrain bi rek. waa gëm sa bopp kañ lañuy ñuy commencé tourner sax ñoom. ñoom bañ commencé kañ la. non dañu war a dellu collecte yi. yow bu nga newoon ni dañu ci village yëpp. noon dañuy dellu pour récupérer. non xaaral ma jox ak ma wàcce non non non dinaa la jox programme bi. waaw Bougane. dina dem Kédougou. waaw Kaolack. waaw Kédougou. waaw Kaolack. Mhm. Kaffrine. waaw Fatick. Mhm. c'est-à-dire là où Macky était poussé. Ah. dina demaat foofu. man maa la wax loolu tànkam bi lay defaat. damaa ne lii c'est plus tibu tànk c'est buddi tànk. léegi non c'est plus tibu tànk buddi tànk. buddi tànk waaw. très bien. présidentielle 2024 Ousmane Sonko et Macky Sall out. le boulevard des seconds couteaux ana second couteau yi yàlla baax na. Mame Mbaye huit heures une minute s'il te plaît. Ah, dégg nga une minute. waaw dimbale ma rek ma li ma moom wala ma ma ma bàyyil la ko. wala ma rek mu géeroo jàmbur. waaw wax nga dëgg. yaa sama xarit. waaw wala sama xarit wax fu dëgg neex yàlla. ñu dem ci Odia. Odia ñëw na ci. Bassirou Diomaye Faye Odia ñëw na ci Bassirou Diomaye Faye mi ngi ay signature am foo bee nga xam ne moo di sa kaso ba. yor na fiche. ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso bi ku si nekkaa ngi signé gis nga eh, imam bi nga xam ne moom moo jotee eh, sama mbokk ci jaan yi maa nga ca ginnaaw moom it ax ak mbuusam war a dikk moom it signé euh, président Macky Sall ak ki nga xam ne mooy Tata Sall nee na là il est en train de récolter des promesses de parrainage en tout cas Odia foofu la génne tey euh, ci euh, actualité bi Yacine Seck aywa Mame Mbaye ana moo gën a fës ci actualité tey. li ci gën a fës moo di ñaar ci ay néew ay tout tànk la ñu kenn ki ñeenti at la kenn ki nag juróomi at ñu ngi leen fekk ñu faatu uh, ca toolu ceeb bu Tangori département bu Bignona uh, askan wa nag daanaka ci ak sëngéem la ñu nekk foofee ca quartier château château d'eau bu Tangori ñaari xale yooyu xam nga ne dañu réeroon ci njeextalu weeru septembre bi daañu ci dikkaat ci bi la jotaay xibaar waxtaanee it mbiri Ami Ndiaye uh, ñii bi la ko dëgmal dinañ si teewlu kàddu yu leeral yi bawo ci maître Abdinaar Ndiaye avocat yu ñaari député yu pur wat wàllu politique dinañ ko waxtaanee ak nag Bassirou Diomaye Faye bi nga xam ne mooy plan B bu waa PASTEF wala PASTEF ba woon ku si nekk ak noo ko jàppee ay analyse politique joxe nañ seen xalaat ndax candidature mën naa jàll am déet tontu li ci bi la jotaay xibaar lay doon tàggat yaram li yéen kaay yi xëy dëkk ñax mantulaay ci bundooy mooy ndar képp bi la jotaay xibaar faram fàcce gi daañ ci ànd ak Simon Faye le sage ak nag